merci beaucoup monsieur le président madame la ministre mang lay nuyu bu baakha baax di la sargal tay di am mbégte dajeeg yow fi ci assemblée nationale ndax bett ñu ci yow sa liggéey ak sa taxawaay ci réew mi ci côté président Macky Sall findel nako tay monsieur le ministre mang lay nuyu bu baax ministre des finances ministre du travail di nuyu sen collaborateur yi ngeen andal mang ngi nuyu docteur Kalidou euh di nuyu sama dekkando yi nek département de Linguère muy Pape Sara di Michel Dan sans oublier Alé le corps madame la ministre bala maa wax dara tey damaa bëgg tey monsieur Cheikh Diop mu dig ma ma dig yi ma doon dig tey bu ñu jógee fii dina ma ko defal dans le département de Linguère président Macky li mu def ci wàllu électrification kenn werantewu ko ku fi fekk 1600 villages dem yow yow rek nga def 4000 et quelques village loolu am na solo waaye madame la ministre dafa am dëkk yu ma lay limal bëgg naa tey ngeen jox ma ne ma confirmation kañ ngeen koy électrifier kañ ngeen di yoon yi. muy jéeri biraan di mbusóobe naar cànke leeñ kebbe daaru salaam melax mbéyéen casde faas abdu arafat dëkk yooyu madame la ministre bëgg naa ba ci mbay awa dëkk yu mag la dañoo peuplé ñooñu tey dañoo dañoo war a xoolaat seen nekkin président Macky Sall nee naa la amul lu ko nit di wax ci wàllu électrification rurale de Senghor a Abdou Diouf ak président Ablaye Wade mille six cent villages lañ électrifié woon rien que le président Macky tey ñoo ngi ci six mille la kenn mënu ko warante waaye lii madame lamir ministre damaa bëgg ñu am coppite goo xam ne ci sa ci yow lañ ko yaakaaree bi ñu ñëwee ci ministère bi suñu xel dafa dal ndax ñun ñu dëkk ci monde rural bi di jigéen yërmande gi nga am taxawaay bi nga am ci ci ci gouvernement président Macky Sall moo tax ñu am yàqin ne lii yëpp dafay faju kon nag madame la ministre maa ngi la koy dénk beneen bi mooy madame la ministre dañoo nekk dans la commune de Dar ñu gis ñu commencé fa ay yoon dama xamul kan moo ko jël ville la wala kan moo ko jël bu dee ci yéen la yéex na lool war ngeen ko baral ndax loolu tamit yàgg na madame la ministre sanu yaa ma leb nag madame la ministre beneen bi may wax mooy euh, bu fekkee na tey jii ñun ñi nga xam ne ñoo dëkk ci monde rural bi président Macky Sall defal ñu ay yoon defal ñu ay poste de santé defal ñu piste de production yooyu yëpp rafet na tey jii bu ñu taxawee fii ci perchoir bi ñu gërëm ko waaye rafet na tamit li nga xam ne ne moom moo des ci li ñu war a mottali ci électrification rurale ci dans le département de Linguère ñu def ko ci yow lañ ko yaakaaree ñu ngi la koy ñaan nga dimbali ñu tamit ci gase ndox mi war a ñëw mbuula moom wax naa ba tey jii am na ñu ma dikk na ma suba dana am euh, mission bu fa dem loolu nag madame la ministre li ci des yow lañ koy bàyyee nga réglé ko je vous